De même, DSP Afrique a pu bénéficier de l'appui d'Amnesty International, puisque le quartier général qui a été organisé au moment de l'observation des élections a été gracieusement offert par Amnesty International et nous voudrions, en présence de sa représentante, Madame Oumou Sia Sadio, eh bien, dire merci à Amnesty International et à son président, M. Seydi Gassama. De même, DSP Afrique a pu euh, mobiliser des experts électoraux de haut niveau à toutes les étapes du programme de monitoring et d'observation du processus. Durant la formation et la mise en œuvre, la mise à niveau des observatrices, la formation des analystes et l'installation de la cellule de, veille électorale. le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique a élaboré une stratégie portant sur la régularité des opérations de vote. La méthodologie adoptée est basée sur le déploiement des observatrices selon les normes d'une observation classique le dispositif adopté a permis de suivre activement le déroulement du scrutin afin d'interpeller les autorités compétentes pour la régularisation des situations. Alors, l'observation qui a été faite a permis de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur le déroulement du scrutin en temps réel afin de garantir la crédibilité, la fiabilité et la transparence du scrutin. Également d'optimiser un système d'alerte précoce de dissuas, euh, dissuader toute velléité de fraude, de contribuer à corriger tout dysfonctionnement constaté en saisissant les autorités et institutions chargées de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral. nous avons saisi spécialement la Sénat durant cette journée du 23 janvier 2022. 50 observatrices ont été déployées sur une bonne partie du territoire national. Il convient de préciser que, du fait de son intérêt relativement à la participation politique des femmes, en application de la résolution 1325 des Nations Unies, DSP Afrique a axé son approche et sa stratégie autour des femmes. C'est ainsi que toute la mission de terrain a été confiée exclusivement à des femmes et à des jeunes filles. ces observatrices ont eu pour mission de collecter les données sur les scrutins en renseignant des fiches sur l'ouverture, le déroulement et la clôture des opérations électorales. Ces fiches analysées après la fin du scrutin de manière approfondie feront l'objet d'un rapport général d'observation qui sera finalisée et partagée. Eh bien, le quartier général que nous avions organisé ici est principalement, était composé principalement de deux chambres. Une chambre technique et une chambre de décision. La chambre technique avait pour mission d'assurer la remontée des données avec les 50 observatrices et d'alimenter les analyses faites par DSP Afrique sur la qualité des opérations électorales. Cette Chambre a également centralisé le dispositif de gestion des alertes relatives aux opérations de vote, une application de traitement de données sous la supervision d'un spécialiste des plateformes techniques assisté d'un statisticien a permis d'agréger les données et de les analyser. La chambre de décision, qui était l'autre chambre installée dans le QG, le quartier général, est eh bien, cette chambre de décision, composée de membres de DSP Afrique et des personnes ressources, était chargée de prendre les décisions nécessaires à partir des données collectées, collectées par la chambre technique. Plus concrètement, cette chambre de décision a pris attache avec les gestionnaires du processus électoral pour signaler d'éventuels cas de dysfonctionnement du processus électoral. Ainsi, les procédures, les procédures d'ouverture, la présence des membres des bureaux de vote l'heure de démarrage du vote, la sécurité des centres de vote, le secret du vote, le matériel électoral, l'affluence des électeurs, la présence des femmes membres de bureaux de vote, l'assistance des personnes à mobilité réduite, le taux de participation, les procédures de clôture, sont autant d'informations qui ont été produites. Quelles ont été les conclusions préliminaires À la suite des observations faites sur le scrutin, DSP Afrique présente les constatations suivantes comme première donnée. À l'ouverture, plusieurs dysfonctionnements et incidents nous ont été signalés dès l'ouverture des bureaux de vote. La non-disponibilité du matériel électoral dans certains bureaux de vote. Il s'agit de l'absence de listes d'électeurs, de bulletins de vote, d'enveloppes inviolables dans certains bureaux de vote, une seule urne dans certains bureaux de vote, la confusion sur les bulletins de vote aux parcelles assainies à Kermassar, l'absence de PV de dépouillement, de liste d'émargement dans un centre de vote à Malika, l'absence de PV de constatation et de réclamation dans un bureau de vote à Matam, l'absence de matériel d'éclairage, notamment à Barny, dans un centre de vote, etc., etc. L'absence de certains membres de bureaux de vote dans plusieurs localités, c'était à l'ouverture, on le rappelle, des altercations entre militants dans certaines localités, une propagande électorale notée aux alentours de certains centres de vote, l'absence d'isoloirs dans certains bureaux de vote, le démarrage tardif dans beaucoup de bureaux de vote couverts par nos observatrices. Un cas de tentative d'intimidation des électeurs dans un bureau de vote, l'absence des noms de certains électeurs sur la liste électorale dans certains bureaux de vote, des actes d'achat de conscience dans certaines localités. Certains présidents de bureaux de vote ou représentants de la Sénat n'ont pas bien maîtrisé les procédures d'ouverture, impactant ainsi le démarrage du vote. Les changements opérés dans certains bureaux de vote ont désorienté certains électeurs. Au total, Plus d'une trentaine d'alertes ont été reçues et traitées ou transmises aux autorités compétentes pour traitement et correction, donc à l'ouverture des bureaux de vote. Sur la base du dispositif technique mis en place ayant permis de recevoir des données à temps réel, il a été noté que dans une proportion de 62%. Les bureaux de vote couverts par les observatrices de DSP Afrique ont ouvert avec du retard d'au moins 15 minutes. Les principales causes de ce retard sont liées à l'organisation et à l'installation du matériel, au manque de matériel électoraux, à l'absence d'au moins un membre du bureau de vote, l'absence du dispositif de sécurité. Dans presque 100% des bureaux de vote observés, les présidents de bureaux étaient présents. Les forces de l'ordre étaient présentes dans 94,40% des bureaux de vote observés. Dans la plupart des bureaux de vote, le matériel était complet. Ceux manquants ont été les PV de constatation, les PV de dépouillement, les scellés ou les moyens d'éclairage dans certains bureaux de vote. Dans 95,8% des bureaux de vote, les urnes ont fait l'objet d'une présentation et vérification publique avant le démarrage du vote. Ces urnes pour ces bureaux de vote ont été scellées après vérification. Dans 54,2% de cas, un dispositif d'assistance des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite et des femmes enceintes fut opérationnel. 54,2%. Dans une proportion de 95,8%, les lieux de vote étaient accessibles aux électeurs. Du point de vue des données sexo-spécifiques hommes-femmes, notamment s'agissant de la présence des femmes en tant que membres de bureau de vote, il a été noté ce qui suit. Dans 54,2% des bureaux de vote couverts par nos observatrices, il a été noté la présence d'une femme secrétaire. 16,7% des bureaux de vote visités par les observatrices ont été présidés par des femmes. 16,7%. Dans une proportion, une proportion de 29,2% des bureaux de vote couverts par les observatrices, les femmes et ont le rôle d'assesseurs. Enfin, dans 37% des bureaux de vote, il n'a pas été noté la présence d'une femme. Donc il y a eu absence de femmes dans des bureaux de vote. À la clôture du scrutin, il a été noté ce qui suit. 48% des bureaux de vote ont observé, observé, ont été fermés à l'heure. Dans 31% des bureaux de vote, la fermeture s'est effectuée entre 19h et 20h. 17% des bureaux de vote visités par nos observatrices ont clôturé le vote entre 20h et 21h. Dans 4% des bureaux de vote, observez, 4%, la fermeture fut effectuée après 21 heures. S'agissant du dépouillement, dans une proportion, une proportion de 97% des bureaux de vote visités, Le dépouillement s'est effectué dans les bureaux de vote, 97 dans les bureaux de vote. Dans 83 des bureaux de vote, le dépouillement s'est déroulé sans incident. La presque totalité des membres du bureau de vote ont signé le procès verbal de dépouillement. Dans 93 93% des bureaux de vote, les enveloppes de dépouillement sont scellées. Dans 48% des bureaux de vote couverts, il a été noté au moins une <laughs> femme scrutatrice. Globalement, les observatrices de la mission, la mission, jugent les rapports corrects entre membres de bureaux de vote et représentants des candidats dans 97% des bureaux de vote. 97% des bureaux de vote. Les rapports entre les membres des bureaux de vote et les électeurs sont corrects dans 93% des bureaux de vote. Les membres de vote maîtrise le processus de vote dans 97% des bureaux de vote. Toutefois, il convient de noter que dans une proportion seulement de 55% des bureaux de vote observés, les électeurs connaissent les procédures de vote. Les procédures de vote. Dans 48% des bureaux de vote, des incidents se sont produits. Nos observatrices jugent le scrutin très satisfaisant dans 10% des bureaux de vote. Satisfaisant dans une proportion de 48% des bureaux de vote. Assez satisfaisant dans une proportion de 35% des bureaux de vote. Pas satisfaisant dans 7% des bureaux de vote. Appréciation globale du processus. Le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique se félicite de la tenue de ce scrutin après deux reports successifs. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur sens de la responsabilité. DSP Afrique se félicite, plus particulièrement, félicite, félicite, plus particulièrement les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de l'ensemble du processus électorale, même s'il y a eu quelques défaillances, euh, s'il y a eu quelques heures, même s'il y a eu quelques heures, pas défaillance, mais quelques heures. DSP Afrique se félicite pour une première d'avoir déployé une mission exclusivement composée d'observatrices sur tout le territoire sénégalais Ceci a permis de développer des données sexo-spécifiques très intéressantes. DSP Afrique se félicite des efforts de toutes les parties prenantes pour la tenue de ces élections territoriales, ce qui constitue un pas important dans l'approfondissement de notre démocratie. DSP Afrique se félicite également des initiatives développées durant les phases préélectorales et électorales par certaines plateformes pour un appel à la paix et à la non-violence. DSP Afrique appelle l'ensemble des acteurs à suivre les voies de recours légal judiciaire certainement, en cas de contestation des résultats. DSP Afrique, suite à ces observations, a fait quelques recommandations. Des recommandations en direction de la Sénat et de l'administration électorale, qui sont les suivantes. Améliorer le système de déploiement du matériel électoral à temps. Améliorer la formation des membres des bureaux de vote. Améliorer la communication concernant la carte électorale, les procédures de vote et l'identification du bureau de vote pour mieux orienter l'électeur. Définir et mettre en œuvre une stratégie de production et d'accès à l'information d'indicateurs sexo-spécifiques pour donner plus de visibilité à la qualité de la participation politique des femmes. Recommandations à l'endroit des partis politiques. Il leur est recommandé de renforcer l'éducation au vote, d'assurer la présence de leurs représentants dans tous les bureaux de vote, d'user des voies légales de recours en cas de contestation et de respecter les délais impartis à cet effet, d'axer leur stratégie de campagne sur le contenu de leur programme politique, de respecter les dispositions du Code électoral relatives à la corruption électorale, d'appeler leurs militants respectifs au calme, à la sérénité et de bannir tout acte de violence. Recommandation aux médias Il leur est recommandé de continuer à informer vrai et juste dans le respect de l'éthique et de la déontologie et de renforcer l'éducation au vote. Recommandation faite à l'État. Il est recommandé à l'État d'inscrire dans le code électoral l'interdiction de matériel servant à prendre des images, des photos ou de filmer dans l'isoloir, de mettre en place une police des élections chargée de lutter contre la fraude électorale, de respecter le protocole additionnel de la CEDAO sur la révision du code électoral pour une stabilité de la loi électorale. Des recommandations à l'endroit des organisations de la société civile. Il est recommandé à la société civile de poursuivre le travail de veille citoyenne et de monitoring de façon générale de travailler à une mise en synergie de toutes les initiatives de veille et de monitoring en vue d'une capitalisation sur les initiatives développées. À l'endroit des leaders d'opinion, il est recommandé de poursuivre le travail de sensibilisation pour des élections apaisées et pour la cohésion sociale, notamment durant la phase post De continuer à soutenir les efforts dans la prévention et la gestion des conflits liés aux élections. Le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique remercie l'administration électorale, la Direction générale des élections, en particulier pour la facilitation de l'obtention des titres d'accréditation et pour l'accompagnement de l'observation électorale par DSP Afrique. DSP Afrique encourage les acteurs et parties prenantes au processus politique pour la poursuite des efforts de renforcement de notre projet démocratique. DSP Afrique félicite la totalité des observatrices et les remercie pour leur engagement et leur professionnalisme. DSP Afrique exprime sa gratitude à ONU Femmes pour l'appui financier durant la phase cruciale de formation des observatrices. DSP Afrique remercie également l'ONG 3D, l'ONG Article 19 et Amnesty International pour leur apport déterminant dans cette observation électorale. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Donc, euh, Amadou Nian va faire dire de ah en ah, wolof ma tënk ci wolof waaye na yéen yéen bare matériel ma sama feuille xaw ma lu ma koy def sax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu kuréelu société civile bi tudd DSP Afrique dialogue maanaam diisoo sécurité wutum kaaraange jàmm ci biir Afrique kuréel googu moom moo doon organiser seet nu ñuy def ba nga xam ne élection yii ñu jóge nii élection locale janvier 2022 dafay am ci kaw jàmm ndax yëfi day jaar yoon looloo ñu taxoon a jóg ñu teel ci jóg nag ndax dañu tibb ci jigéen ñi parce que bi yoon dañu ne jigéen ñi ñoo aye pour dem saytu ndax ñoom euh, seen euh, ñu dugal seen loxo ci mbirum jàmm dafa am solo mu am benn kuréel benn charte ci euh, Nations Unies ñu di ko wax charte 1325 bu ne nag dañu bëgg jigéen ñi di dugal lool seen loxo ci mbirum jàmm te bu ñu bëggee am jàmm élection il faut mu jaar yoon moo tax ñun ñu ne woon dañuy jël lu mat juróom fukki jigéen tàggat leen ba pare nag tasaare leen ci Sénégal yëpp ndax ñu dem saytu élection yi xool ndax jaar na yoon walla jaarul yoon loolu def nañ ko di jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ma di ci wax ONU Femmes ndax ONU Femmes wax dëgg yàlla jàpp na ci yëfi tàggat na jigéen ñi pour ñu mën a dem ci terrain bi def li ñuy wax observation des élections bu jaar yoon ONU Femmes mu ngi ci ONG 3D jàpp na ci euh, euh, ONG bi ñu tuddee article 19 jàpp na ci waaye Amnesty International nag kenn demul ñu des ndax ñun quartier général bii ñu créé woon Amnesty International moom moo ñu ko abal ñu ba nga xam ni wax dëgg yàlla euh, information yi doon na ñëw ñuy xool nu ñuy def ba ci biir euh, askan bi ci biir euh, Sénégal yëpp bu ñu ko yëgee ña ñu war a laa ña ñu war a saisir ñu saisir leen pour ñoom ñu xam lu ñuy def ci mbir yi li ma bëgg wax nag mooy ah yépp nag yambul woon amoon na ay jafe-jafe waaw jafe-jafe yi amoon na ndax yenn saa yi da gis ñu ne bulletin de vote bi mu nga jógee fu mel na Kolda la woon de daal ñëw tab Sédhiou Sédhiou daal di tab bi ci biir dëkk bi Dakar Kër Massar wala ñu ne Bambey la jóge tab bi Parcelles Assainies yu demee noonu bon ah ak yooyu yooyu am na aussi remarqué woon nañu ni matériel bi ba ñu commencé wote bi daf ci am yoo xam ne nekku fi woon amoon na retard bon euh, ñi nekk ci bureau de vote bi ñoom ñëpp nekk ñu woon ci bureau de vote ba amoon na daal ay jafe-jafe pour ñu commencer ci heure bi huit heures am na ñoo xam ni ñu ngi commencé huit heures waaye am na ñoo xam ne ba onze heures commencé guñu woon loolu lu amoon la bon yeneen jafe-jafe yi nga xam ni euh, relevé woon nañ ko moo di ni euh, amoon na ñu nekkoon ci booru gox yi di essayer wax nit ñi e woteel leen kii wala woteel leen kële yu demee noonu amoon na donc bu ñu xoolee yëfi daal euh, amoon na ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu mën nañu wax ni yàquñu dara nag ci élection bi ndax ñun bu ñu ko indilee ña nekk suñu ca terrain ba jigéen ñooñu ñu tàggatoon bu ñu joxee information li ñuy def directement mooy jébbal ko ñi nga xam ñoo ko war a seet lijjanti ko donc journée bi yëpp dañ doon woo par exemple waa Sénat te remarqué nañu saa leen daan woowee yëf yi bu ñu laajteewaatee dañ naan rek la nañu problème bi kon ba côté boobu dañ ciy sant lu baax bu baax a baax baax yenn jafe-jafe yi nag yu ñu gis parce que kat jigéen ñi dañu ne bi yoon dañuy dugal seen loxo ci mbir yi ndax ñu dugal seen loxo ci mbir yi dafa am solo ndax bu ñu beddee jigéen yi am na lu bare lu ñuy perte mais remarqué nañu ni par exemple pour xool ñaata nit jigéen ñoo nekkoon ci biir bureau ba jafewul woon ndax ñun dañu amoon plateforme mais pour gën a tàggat pour ba gën a fexee ba bu ñuy def élection yi ñu xam deminu jigéen ñi ci biir élection yi dafa am lu manqué ndax dafa mel na war nañu waxuñu ñu carrément ci liste euh, list électorale yi ñaata jigéen a am ak ñaata góor a am loolu foofu daal leeru leerul xawma lan moo ko def xawma dañ ko deful walla boog dem accéder ci fichier bi moo jafe fichier bi da nga ko wër a wër a te doo ko teg bët buñ ko tegoon bët nag yëf yi day gën a yomb euh, bi ñuy def dépouillement yi nit ñi def nañ ko ci yoon wax dëgg yàlla xëy na ay problème daal barewu ci te seetlu nañu ni euh, bureau de vote bi ak représentant wu yi nekk wu ñu fa woon di def xiiroo ak ŋaayoo au contraire dañu juboo woon ci seen biir te li ñu gis daal ni mooy globalement daal wax dëgg yàlla euh, suñu kuréel li mu remarqué mooy élection yi li ci ëpp daal mën nañu wax ni jaar na yoon élection yi laa wax jaar na yoon loolu ñu ciy sant bu bare bare waaye comme ay jafe-jafe nag dafa amoon dañu ne euh, dañuy am na kuréel yoo xam ne il faut ñu defal leen euh, yóbbal il faut ñu wax leen ni fii war nañ ko régler pour beneen yoon fële war nañ ko régler pour beneen yoon parce que li ñu bëgg rek mooy yëf fi gën a normal yëf fi gën a jaar yoon ndax jàmm ne ñooy ndax jàmm rek moo ñu tax a jóg bu dee senaa bi par exemple ak administration bi dañu yaakaar ni affaire matériel bi loolu war nañ cee gën a góor góorgóorlu ndax waruñoo xool matériel bi euh, ñu koy ñu koy indi ci kanamu électeurs yi waroon na fa fanaan dafa war a fanaan dafa war a fanaan ba pare war a mët sëkk ba pare ñu war a xool daal nu ñuy def ba nga xam ni ñiy yóbbu matériel bi du ñu juum ëllëg ñu yóbbu ko euh, Kër Massar ñu ñu ñu ñu yóbbu ko euh, beneen région Kédougou wala xam nga yooyu day daal di indi ñàqare ak jafe-jafe. ba pare ñu war a fexe ba nga xam ni bulletin yépp daañu taxaw parce que am na ñoo xam ba midi seen bulletin nekk foo woon mu metti nag parce que ñooñu kenn du leen votel huit ba midi duñu am ku leen votel loolu day indi injustice ba pare ñu ne nag nañu fexe ba mu euh, jigéen yi seen présence ci liste yi gën a fés ñu mën a xam ñaata jigéen ñoom ñoo nekk ci liste yi ci bureau euh, ci ci ci ci ci ci liste yi d'abord liste yi war nañoo xam exactement parce que ñoom dinañu bind góor homme walla femme waaye pour ñu xam ko ñaata la ñaata jigéen ñaata góor day gën a yombalal yëf yi bon euh, bureau yi évidemment bu ñu nee benn jigéen a fa nekk secrétaire walla amul yooyu daal léegi xalaat xel daf ko daf ko daf daf ko daf ko daf ko bañ xel daf ko bañ kon ba côté yooyu war nañu ko fexe ba pare nag su fekkee ni lieu de vote dañ koy transférer jëlee ko dëkk bi yóbbu ko feneen nañ ko wax ñi nekk ñi ñiy wote ci foofu moo gën ñu xëy suba teel dem fa duñ fa fekk kenn kon boog administration li ñu koy ñaan mooy côté boobu wax dëgg yàlla mu góorgóorlu ci ba yëpp yemb balaa ñuy euh, ñuy commencer vote yi parti politique yi aussi ne naa leen ñu yar seeni euh, militants ci naka la ñuy voter militants yu bari xamuñu nu ñuy vote hmm? ñu yar leen ci ba pare ñoom nag nañu góorgóorlu aussi ku ci nekk na nga samp benn représentant ci sa ci bureau de vote soo soo nekkee ci liste yi nekk candidat kenn nekku fa day nekk day day am problème ba pare su fekkee ni nit d'accordul ci résultat yi dañ koy wax na dem fa nga xam ni charte yi lañ ko wax mu dem fa gere ko mu def ko nag rapidement ne leen man d'accorduma ci lii kon boog saytu leen ko xool lan moo war man looloo ma gënal na ñuy ñuy jël ay ñuy kur fañ ku nekk di kurfañ sa moroom loolu moom moo moo gën fuuf yemul sax euh, te ñuy présenter nag euh, euh, parti politique yi baax na ñuy wane programme programme parce que xam nga élect électeur bi dafa war a voter parce que am na lu ko leer ci ki muy voter bu ko amul ah day indi rek ay ay ay jafe-jafe bon euh, ba pare nag euh, média yi yéen i tamit am na ay recommandation yu leen jox wax dëgg gi rekk dëgg gi vrai et juste dëgg gi rek ci éthique ak déontologie waxuma ni nekkoo leen ci mais dañ leen di ñaaxaat rek gën a ñaax du dëgg éthique ak déontologie maanaam na mu gënee jaar yoon na mu gën a jaar yoon yoon wi rek lan la mu jeex ba pare ñu leen di ñaan aussi parce que yéen seen rôle dafa am solo da ngeen di tasaare wax comme ba yéen yéen ay éducateur ngeen war a nekk presque yéen yéen yéen ay éducateur ngeen éduquer euh, nit ñi ci naka la ñuy voter parce que comme xam nañu ñu bare xamuñu nu ñuy voter état bi tamit ñu di ko ñaan mu e, tere ci code électoral bi nit ñi di indi ay appareil photo ak ay seen utiliser seen portable pour filmer pour filme la nekk ci isoloir ba da ngay gis ko xam dafa filmer daal di ñëw ne mbalit mi gis nga bi couleur moo fa fees ak yooyu baaxul ba pare e, ñu ñu renforcer charte yi pour jalgati ci mbirum élection ñu ñu ñu mën ko daan dañ ko war a renforcer parce que fraude électoral daal dafa metti ci dafa metti ci askan kon boog dañu bëgg rek euh, ñu indi police boo xam ni day tax ba nga xam ne fraude électorale du am police boo xam ne dañ ko ci former dañ ko ci tàggat ba nga xam ne ku bëgg jalgati ñoom dinañ ne ah kii mu ngi jalgati ñu dugal ci seen yoon parce que bu fekkee ni police bi affaire sécurité kaaraange rek la ñu utiliser am na beneen kaaraange boo xam ne am na solo mooy fexe ba kenn du jalgati affaire kaaraange la jalgati ba pare nag ñu respecter aussi charte CEDEAO bi ci mbirum. Euh, Euh, mbirum loi yi ñuy def période électoral électorale CEDEAO dafa am ay charte yu mu teg neew loi bi loi balaa nga koy tëral mënoo ko tëral te ñu nekk à quelques semaines des élections wala quelques mois des élections ay charte lañu tëral ñu war ko respecter société civile bi nag nee nañ leen lépp lu ñu doon def pour dooleel askan wi ci mbirum élection nañ ko dàbbali nañ ko yokk ndax lu am solo la société civile bi moom côté boobu dañ ko ci xaar bu baax a baax a baax ba pare nag di leen wax ni lépp lu ngeen mënoon daal ci mbir yi rek na ngeen ko dolli leader d'opinion yi boo jëlee par exemple leaderu kilifa diine yi dañ leen di wax ni lañu def pour jàmm sax ci réew mi mais surtout ci période élection nañ ko gën a ci dolli ndax am na solo pour askan bi ñu nag wax dëgg yàlla dañuy remercier euh, ministère de l'intérieur te ak surtout euh, direction générale des élections ndax dañu yombalal accréditation maanaam màndarga bi tax nit ki ñu ne ki observatrice la mën na dugg ci bureau de vote ba laajte ay question xool dugg génnaat dañ ko ci remercier bu baax a baax a baax ak nit ñu accompagner di def di tàggat suñu suñu jigéen ñi doon dem loolu dañ leen ci remercier bu baax a baax a baax euh, di remercier aussi wax dëgg yàlla euh, observatrice yi ndax ñoom dañu wane professionnalisme dañu wane mën-mën bu ngeen gisee ni ñu doon kii ak bi ñu tegee euh, suñu euh, kii bi plateforme bi ni information yi doon dawee ak temps réel maanaam am na rek ci saa si ñun yëg nañ ko c'était un phénomène boo xam ni dañ ko ci euh, dañ leen ci remercier bu baax a baax a baax remercier acteurs yëpp ndax li xew démocratie la woote woote nañu am na nag mettit yu si juddu ndax violence am na fa deret waru woon tuuru ndax lan mooy voter élection mooy tànn ka lay taxawal ca gox ba loolu jarul xiiroo ak ngaayoo defal sa programme waxal ak nit ñi ñu ne la jàppale jà d'accord nañ ci sa sa programme woteel la mais xiiroo bee ngaayoo bi dafa ña dafa ñaawoon ñu ngi koy regretter en tout cas jour élection yi ba tey nii même bu fekkee ne amoon na ay cas yoo xam ne naqadi nañu dans l'ensemble wax dëgg yàlla amoon na fair play dans l'ensemble en dehors de cas yooyu may wax acteurs politique yi def nañu seen wareef jël nañu seen sens de la responsabilité ku ci nekk félicité nga sa moroom ba fekkee nii xam nga moom moo la raw may remercier waat encore une fois ONU Femmes di remercier article euh, dix-neuf madame la représentante de article dix-neuf moo toog nii euh, di euh, remercier ONG 3D tey remercier nag wax dëgg yàlla Amnesty International ndax li ñu def lu rëy la kon boog loolu la ñu bëggoon a wax déclaration d'accord waaw euh, sur la fermeture hein waaw alors euh, bi ñu tëjee ñun suñu platforme bi daf ñu jox les chiffres par rapport ak observatrices yi demoon bu ñu jëlee téeméeri bureau de vote ñeent fukk ak juróom-ñett yi six heures tëj nañ bu ñu jëlee euh, toujours bureau de vote yi ci téeméeri bureau de vote 31 pour cent fanweer ak benn pour cent ñoom ñu ngi tëj entre 19 heures et 20 heures 7 ci ngoon ak 8 heures ci ci guddi donc 7 heures ci guddi euh, ci ngoon ak huit heures ci guddi. am na nag euh, bureau yoo xam ne boo jëlee téeméer fukk ak juróom-ñaar ñoom ñu ngi tëj diggante huit ci guddi ak neuf ci guddi am na nag ci téeméer yooyu ñeent yoo xam ni ñoom bi neuf ci guddi paase ca lañ tëj Saiu bom. Ce n'est qu'une déclaration. Amadou.